assalamualaikum mbokk yi mu mel ne bëgg ndombal international lañ jàkkaar lool ni ñu ñëw fii si école saxaaf baamu fi mu jàngee dooree fi baa am ci ay souvenir yu bari nag waaw bëgg ndong nag ñu bëggoon nga fàttali ñu ci souvenir yooyu salaamaaleykum bëgg ndongo waaw waaw finimo ese palastro. Ajá. Besar. Isi kau nih Desan. Italiano. È meglio che siamo Amin, amin, amin. Amin, amin. waaw waaw yow ki bëgg ndongo bëggoon nañoo xam tamit yow yan souvenir yan souvenir ñoo la gën a marqué ci école bi nga jàngee nga ni fi nga dalee baax

mais mais arabe bi moom ndax mën nga yow limal ay matière yi nga doon jàng yéen yan téere nga si doon jàng ci arabe mais matière yi day am boo ci gën a maîtriser yow ban ban nga ci gënoon a maîtriser yow wallaay loolu nag loolu nag bëggoon nañ nga leeral ci ndax ñu bëri yaakaar nañ yow ci côté zaïrement bi da nga cee concentré wu ca dëgg la sax ñi la jege ñoom xam nañ mais ñu bëri xamuñu def dañoo yaakaar ne yow ci côté musique bi da nga cee concentré bu baax a baax ba bàyyi sa yenn diine loolu waaw bëgg ndongo ñu ngi lay ziare bu baax di lay wax ni tey moom war nga mën a kontaan yaa ngi sa dëkku maam tey jii di bisu la 24 di bisu la 24 mars di weeru euh, ñu sargal jigéen ñi waaye nekk weer wu ñu profité ziare si ñaanal suñu maam yeeg suñu papa yeeg suñu rakk yeeg suñu waay suñu jiitu ñëpp bëgg ndongo tey noonu doo dundee ziare bi sallallahu alayhi <laughs> ah oui bien. fii ak tu vois Ça va waaw téléphone da ngeen rek man dama jël yow bokkul ak par rapport ak yow man bu neex par naa ko après naa jël waaw man man damay ñëwaat tudd par pour pour souvenir souvenir ah? yéen yéen yéen ngeen yàlla de Balla Balla Gaye Eumeu Sène dafa daan ñaari yoon mu ne Eumeu Sène mënu ko. mënu ko wala ñu. dëkk moo ko doon seen bu dëgël. ah xaaral ma jël Ameth Niang. Ameth Niang ñu ngi lay siyaare di la ñaanal jàmm di ko sàkku si yow mais tey jii nii yaakaar naa ne bisu mbégte la di samedi tombé le 24. mars di weeru jigéen ñuy sargal jigéen waaye nekk weeru ñuy siyaare di ñaanal suñu maam yi tey jii ne yow noo ko dund ak noo ko jàngatee ginnaaw bi nga nekk ànd rek su groupe whatsapp njàmbur bi ak fee ca kaw aw ngom maari bi prési mi jëg do bi wax tay mu mu ko muy mukk ak rek hmm ma sha Allah len jaar na la do ante ala mo to nga ka ak ma ñu nek fi di ko préparé yi préparé ke ndey yi ka nek ko ke ñaari est ce que ah di fi kan mhm. di ko préparé bo di fi di jaar bi ñu ngi rafetlu sa kàddu bu baax. waaw ginnaaw bi loolu weesoo kii mooy bëgg ndongo yéen koy dégg international. waaw waaw bëgg ndongo international. waaw ca kaw waaw di koy groupe Ndiambour bi fee ca kaw du ay fo waaw kii mooy Mame Dame mooy suñu safoor waaw ki ngeen di gis nii mooy Ngom Dollar waaw Ngom Dollar a ngi nii. ñu koy seen waaw ci mooy sawar bi daal ba mu yàgg mu bàyyi baar oto bi di reetaan di reetaan ndax kontaan ba kontaan moom nag fekk day kontaan waaw jigéen si nii mooy Diop Koka lu <laughs> ziar di nuróol la 24 lii du ay caaxaan <laughs> moo di Basiru am ci googi nii borom waxtaan bu neex wi oh, am ci waaw waaw moo di Cerno waaw kii moo di Cerno ngeen koy gis nii waaw waaw suñu ngi nii mu di grand pape lii nekk lu neex lool ah, ah, ah. waaw li dañ koy feete mu nekk lu neex lool